Kajoor production ak Ibrahima Diop moo ñu indil le combat de tous les dangers mbokk yi bii nag mooy avant gu Papa Sow ak Siteu Mama Lamine moo koy bëree tarkindaa bi xale bi xew si jamono su bëree mu neex su feccee mu neex su xeexee mu neex kan ñu ni Garga 2 doomi parcelle yaakaaru jàmbaar Wrestling Academy di ndaanaan pire waa Mama Lamine lan nga nar sa digganteeg Garga 2 je tag je cogne et je gagne avec la manière ah xale bi dekkil na Moustapha Gueye Garga 2 du dégg loolu lan ngay tontu Mama Lamine waaw ah, yow ca waxal bi ngay daw te moom laa lay daane ah cum bu ko waxee rek mën na ko ndax ndaanaan dëgg la mbokk yi lamb ji nag en direct lay doon pay seen affiche point com miin ngeen ko xam ngeen ko te tàmm ngeen li ngeen soxla ci lamb seen affiche dong moo leen ko mën a jox live live de midi à 21h boole kook direct bu musul am fenn triplex jële mbëri seen kër indi leen ba si biir stade bi 1500 dong la jëndal sa code ak dièse 144 dièse nga bës 5 def étoile 346 360 étoile 1500 nga bës dièse bu fekkee ne da ngaa nekk Europe wala États-Unis fi nga daan jaar rek ngay jaar www point senaffiche point com drapeau bu ñu boo xam ne ñañ ko sponsorisé ay oto la ñuy jaay sa xel war naa dem ci bien sûr sa xel war naa mën a dal de. ndax dañuy naan mm, jaakaroon nag day may day day dangay bëgg bëri yàpp. bien kon xaar leen. waaw te mbay Babacar. Ah, wala Babacar. waaw Koña numéro 2 ak ki nga xamante ni mooy Boy Pire kan laa njëkk a woo ani Koña Koña na ñëw taxaw. Koña ngi nii ani Boy Pire xaaral nday defal ni yéegal. voilà da ngay yéeg attention waaw non lii lii moo jaadu xool leen caméra yi cey loolu waaw waaw daa war a neex de kuum la fii wóor cey li ngeen defati gaa yaa ngi doon xalaat Coly Faye numéro 2 ak Ada Fass ngeen ñëw jox ñu bii combat spécial def ko drapeau Nokia automobile la ilaha illallah làmb balaa nga koy tëg da koy xam rampe daa baax da ngeen a rampe xam nga LP fii la dëkk Fass Fass mënoo fee dëkk te doo xam làmb loolu boo ko defee dañ lay génne Fass Nokia mais petit mais di doomi bawal moom itam rampe yàgg tëgg ma pat ba nii mu tëggee làmb bool bool bu xamul làmb du bari moo tax lii ngeen boole mooy làmb nay mbàkke waa xoolante bi da ciy baax ah lii ci la bokk de parce que mbër nag dañ koy gañ ci biiri bët moom it ndaw tey seen da naan jàkk nii di la xool du xef nga naan fu may aw mu kaadaral ba moom lay def lam lay def lii da cee bokk mën ta ñàkk parce que nii song ci lay am waaw non waa waaw parce que loolu lépp ay affaire la xam nga des fois regard bi day am lu mu lay yàqal li nga nar regard bi des fois mu yàqal la ko bu ko defee doo gis regard bi koña it am na fu muy xool de nday mbàkke wala gisoo fi koña di xool am na fu muy xool de ça veut que am na waa laa <laughs> la illallaah nday ñoom ñaar ku ci ne man de xam naa ku ci ne li nga nar a def sa morom bu arbitre suuf lii ci seen taxawaayu léegi bi laa ko gis ku ne am na loo nar booy Pire maa ngi lay ziar ana waa Pire ci loo ne. Babacar ñu ngi delloo ziar. waaw di nuyu ñëpp ñu fi teew. moom mu ma yéeg man waaw man li booy Pire acca. waaw ngi nuyu ñëpp ñu teew ci salle bi. ñu leen di nuyu di nuyu sama adversaire Kogna 2. Kogna 2 waaw di nuyu promoteurs yi xam nga di nuyu ñëpp. di nuyu ñu ma àndal. laay bu boy pur xam nga caatu boy pur bàcc xam nga maa ngi nuy ñëpp ñu ma àndal. di bëggewaat bu baax a baax di nuyu monde entier di nuyu waa yëmbal bi ma jógee xam waa pur waa Géejawaay xam nga waa Kër Massar Malika maa ngi nuyu ñëpp leen siyaara di leen wax ñu waaj. waaw di nuyu suñu. ki ñu tuddee drapeau sponsor bi ah, Nokia automobile waaw kii jaay oto yu baax yi oto yu wóor yi waaw loolu loolu yoon la loolu day neex ah. xam nga day gën a riisal biis bi xam nga dina tax jaas yi ñu waroon a denc day génnaale kooku kooku xam nga xam nga kooku njar njardeem la kooku bu ñu tegalee oto xam nga ah. kooku kooku mooy ubbi na suñ buntu laam oto xam nga boo ko yoree rek daanaka doole la doole la premièrement ndax fépp fu fu wutukaay doole nekk pour nga dem jot fa day yomb waaw kon mais yow yaa ngi ci ñaata combat yow. man maa ngi ci douze combat ñaata victoire. maa ngi ci neuf victoire euh, neuf victoire trois défaites. Ah! waaw. ban écurie nga ne. écurie waalo. lay lay la fa mu nekk ay mbërë nga fa de. waaw xale yu jafee daan waalo. Mm-hmm. Lac de Guiers leen di teg lu metti du xam nga ñaabu ndaw. xam nga booy waalo xam nga Baye Mandiaye. ah non la dageer ku ko fa tegu dana la génn doo yàq sama joob la lay wax. waaw noonu la demee xam nga waa ngir waalo ñëpp dañ ciy jàpp ñëpp ah. ñëpp ci liggéey bi. kon xaaral ma lak la mu wax leer na joobewut noonu. Nokia wala boog Koña maa ngi lay ziar. Babacar onze billah bismillah ina wa ni yàlla jërëjëfe borom Touba jërëjëfe sant yàlla julli bi sant ñaari waajur mhm. xam nga di waa yëpp di nuyu waa Touba Toul xam di nuyu xam nga sama dëkk waa Sambaay maa ngi nuyu bu baax di nuyu waa Newraan xam nga sama dëkk cosaan maa ngi nuyu ñëpp xam nga di nuyu waa Touba maa ngi nuyu tund Touba Toul xam nuyu waa Colobane nag Colobane mi nga xam ne fi sama lépp waaw maa leen nuyu bu baax a baax a baax di nuyu commerçant mm-hmm. yi Colobane yëpp képp ku naa yokkal ma jaay rek maa leen nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa Difoncé mm-hmm. xam nga di nuyu waa fépp pàkk nekk waa Soupon waa Fako Lambaay maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu Tundu Kolobaan yëpp. Medina Gueule Tapée maa ngi nuyu ñëpp. yaa ngi nuyu ñëpp. Konia yaa ngi ci ñaata combat kii dégg nga li wax moom. man maa ngi ci 11 combats 3 défaites 8 victoires. yéen ñett ñaar ku ne 3 défaites ngeen. Ah, moom ci li mu wax. ah gëmoo li mu wax. ah xëy na loolu moo nekk mais. 3 défaites la wax 3 nga wax. la wax. moom it 3. yow ku la daan. man kii moom a daan wax jàmbaar moom a daan ak Ronaldinho ak xeeru ngor. ak xeeru ngor. Mm. mooy trois défaites yi am. waaw yow kan ak kan man loobu yof moom a daan. deux ziga ak Gibson. ak Gibson léegi nag quatrième défaite faw mu am de. da koy micro baa ngi nii de wax leen ka quatrième défaite. kan mooy encaissé wax leen micro baa ngi ci dikk bi de. dajay delluwaat trois défaites yi da koo tegale nii. daa tegale trois daa tegale trois défaites yi nii da ciy delluwaat quatrième défaite am. fi mu dugg xamu ko baaxul. déet waay barki sëñ Bamba fi mu dugg baaxul. da ñi ko daan ñëpp maa leen mën. Ah. ñi ko daan ko trois defet ñëpp maa leen mën. daan na ko daan de. déggoo li ma la wax. jàmbaar laa lay wax de. wax ah, yow Weuz jàmbaar ñaata yoon la fi daanoo. Ronaldinho ñoom ñëpp ay ndaanaan lañ mbër lañ dama ne la ñoom ñëpp ay ndaanaan lañ mbër lañ. ko daan ñoom ñëpp maa leen mën. kon de moom xanaa du doy xanaa sa taal. Ah, yow du du wàcc sax bay doy. booy daa mën a bëri de. baa xam ne jël na drapeau ak Sénégal. ak ak Ndakaaru nee ma daa mën a yooru yooru day yooru benn technique bu dem bu yebut dem. benn technique la te bu bu essayé mu daanu loolu loolu du làmb. technique bi daanul wala ma daanu loolu du technique bu làmb. daanul daanul wala ma daanu lay def. maanaam kon amul ak bañ. non non moom bu arbitre ne prix bu ne sarax tànk bu essayé day daanu kon loolu technique boobu baaxul. ok yaa daa mel sa waay jàngat na la de. yow boog kii. waaw waaw kooña. instant bi combat bi ñuy wax ju bëri dama jee warul fi mu ma jëlee baaxul moom. fi mu la jëlee moo baaxul. baaxul ci kan la baaxul. xamal lamb yenn saa yi nii di nga nekk ci ay tolof tolof. Mhm. xam nga mbër mu ne da ngay jékki-jékki ne ci ay trophée bi ay mbir la. waaw. ay wax nag laa ko wax. loo ko wax. mais kii comprendre kii nii. waaw. mën naa koo jangal bëri dix fois seen écrit laa la wax de waxuma ko moom de. écrit waalo la na yow itam nag. écrit waalo ku fa mën a bëre. bëri na kay. kii xam lan la moon ci làmb kii daw door nañ ko fi mu daw bu daane bi arbitre déet waay daw yi ngay bàyyi gi nga fii ñi Petit tegu fi pour ay ay ay ay mbër yoo xam ne dañuy daw. doy dëgg alxuraanu karim maal dàqa bëri fu ma bëree dama lay duma. loolu barki ma duma la boo bëree ma daan li nekk ci man nekkul ci yow Koña. Koña sa bëri fan la ne yow benn technique nga am. kii du ma bëree mu dama koy duma. wallaahi lazim ma du lamb du benn fan du ñaari fan lamb du benn fan du ñaari fan lu mu aajowoo pour ma daan la dama koy def ah, soo ma doon dóor vingt fois bu ma jekkul damay génn mais xam nga lan moo ma ñor xam nga lan moo ma ñor daan la bul wane ginnaaw wane loo ma ginnaaw yow wane ginnaaw di daw wane loo ma ginnaaw ngay taxaw yow sa combat mujj bi tapet moo la daan ma tapet mos na maa daan sa combat bu mujj bi tapet moo la daan laa la wax nga naan ma ay tëg patati patata yow déggoo li ma la Babacar kii daanaka bu daane arbitre bi toog ci ci suuf si kuy daw di jàkkaaroog arbitre di ko daane. Ah, yow daanaka damaa wane ginnaaw ngeen damaa damaa wane ginnaaw nga wax damaa wane ginnaaw wala damaa arrière. yow damaa wane ginnaaw wala damaa arrière. daw wane ginnaaw waxet talalu jël njool mi baal boobu tapet boobu. moo duma daan la far force te mënoo ci lenn. koo ñaar deux. wax la am ci combat bi. wax rek ki nga kii xool bi ñu taxawee dama man ku ma ku ma tolol nii tay maa la fuuf fuuf kii du ndànk sax ah. kii maa la ko wax ne bu ñu takkoon ngeen fii nii léegi sume ko ma daan ko dix jëli bokkul nga romb ma ni ma kàppoo billaahi ma daan na dix jëli bokkul barki karim li nekk ci man xaaj ba nekkul ci yow kooñaa mënoo bëre kooñaa ah jour si dina leer ñu xam nga xam ne kooñaa boo defee lenn ci la boo ci defee lenn ma xaaj combat dem dem dugg fu la neex jaal bi xam nga ñëw toog benn combat ñun dañuy compétir man ak yow bokkuñu. kan moo compétirul xamal sa bopp xamal sa bopp man li may def compétiroo defoo tous dara defoo ko fi. lan nga fi def nga xam maa la mën fuuf lan nga fi def lan nga fi jël ma daan la dix combat lan nga fi def barki Sëñ Bamba waxoo dëgg. dix combat billaahi waxoo dëgg doo am rëpp doo ko am. doo am rëpp dama lay dóor mu nga tawaat yow yow mën nga maa duma yow. arène nationale bu ma taa yow mën nga maa duma yow yow mën nga maa duma yow yow nga duma ma man sponsor bi ñoo ñoo ngi koy kii Nokia automobile waaw ak waa la li lay ñaan waaw moo ñun sonn nañ ci paas bi <laughs> yaa may dégg ngeen jox ñu oto oto na leen tegal oto rek na doon 205 na doon 406 lu mu doon na dib oto daal na dib na ko teg ci bi gars ngeen jàpp ma ci wàllu béy parce que ñun dañu war a mobiliser Colobane gépp a nekk suñu ginnaaw xam nga waa maquette bi waa bal bi képp ku naa yokkal ma jaay la commerçant yi ñëpp a ciy jàpp ma de man commerçant laa dama bëgg ngeen jàpp ci yéen ñëpp parce que ñu war a dem stade te stade bi suñ loxo jotu suñ woo prési xam nga di ci woo Abdou Aziz sama doom Abdou Aziz maire bi maa ko ciy woo Abdou Aziz Faye sama doom baay la sama doom baay la maa koy woo ci combat mu jàpp ci bu baax a baax a baax yaa ngi may di woo Ousmane Ndoye tamit mu jàpp ci bu baax a baax a baax ñu ñoo woo bu baax mu jàpp ci combat di woo Ahmed Dieye a jóge nekk nañ ci rent nañ ba mu jot ci mairie bi nañ jàppale bu baax gën ñoo jàppale bu ñu doon jàppale mais nañ gën a jàppale parce que ñun ay jeunes lañ ay xale lañ dina ci yoon uh-huh. di woo waa Touba Toul yëpp di wo waa Guy Ndiaye waa Laañaar xam nga di woo waa Koccox maa leen di woo ci combat bi di wax sëñ Ablaye Diop ne ko nag gën a jàpp gën ma ñaanal bu baax di woo Saa Touba tamit maa ngi koy woo ci combat bi bu baax a baax a baax waaw maa ngi koy woo bu baax a baax a baax xam nga di nuyu Mansour borom yaraax maa ngi koy nuyu di ko woo tamit mu gën ci jàpp moom tamit xam ga di nuyu Fallou borom mees yi sama doomu ndey sama xarit lu mu jaay ci mees rek baaxul am na solo borom Gambie maa moo koy woo ci combat bi borom dal yi ah. mu jaayit moom tamit baaxul am na solo maa ngi woo ñëpp daal di woo waa Colobane di ko wax ne kii hmm. li ma koy wax bari combat bi maa ko a soxla téeméeri junni yoon man dama bokk ci lam amateur yi di ma bàyyee xel combat bi lu mu ci baax rek dinaa ko ngeer loolu maa la ko wax parel fépp foo loo parel doyul combat bi ma sama bakkan laa ci teg yow nga daan sama bakkan wot biir stade bi yemale xam naa ne comprendre sax mais dinaa la dóor di nga dawaat ko di nga wane ginaaw daw dinaa wane waat ginaaw dinaa la daan booy bur day wala ma dinaa wane waat ginaaw na nga pare pour barki Serigne Bamba doo xeex doo xuloo tapet nga tapet nga barki alxuraanu karim tapet nga billaahi tapet nga yow lay sàng yow lay sàng yow lay sàng maam buñ la ko woon ci billaahi mu daw barki alxuraanu karim da ngay duum moom moo gaaw a daw ci moom dañ leen a fay dañ leen a fay booy wallaahi naa si mboxoo dëgg dañ leen a fay mboxoo dëgg laa la wax yow booy pi yow boo ma dumaa ko ñaaw ma xàcc ci li ma doon barki Seydina Muhammad maa dafa bëri fu ma jàppee dama lay duma dama lay duma ba nga taw yow barki sëñ Bamba dinaa la duma sa yoon nekku ci sama respect sëñ bi di jëndil sa bopp sa yoon nekku ci sama respect nga naan ma ay respect respect ku nga naan ma ay respect wóor na yàlla dama lay noonu billaay wallaay yow dinaa la duma barki sëñ Bamba li nga xam ne doo dërëm nekk fii nekkoo fi lu dul daanu nekk fi di bëri wax yow trois combats nga nekk fii trois combats nga tegale ko daanu di wax yow wax waru la wax waru la deux défaites laa tegale woon maa ngi ci trois trois victoires yu ma tegale yow kan ngay suul yow yaa ngi ci yow yaa ngi ci saako bi ñu dugal la ma war rokkas nga ma bëri yow bëri ñoom du ma fa jaar du ma fa jaar ñëpp laay raatale ñëpp laay raatale ñëpp laay kan mooy tànn man man maay tànn ak kañ kañ lañ dox suñu combat daw ko kañ lañ dox suñu combat daw ko yow yow yow ma wàcc yow di bëri yow nii nii da ngaa ko ñaa yow wala pour ni ko non sa tur ak sa carte nag sa bërëg lépp laa ci yemal dinaa la duma dinaa la daan barke Seydina Muhammad war rek ma wax la yow boy pi boy pi s'il vous plaît Nokia s'il vous plaît mu tuddati léegi looy tàggoo waaw di nuyoo waat ñëpp xama di nuyu promoteur bi côté production uh-huh. ak LBT Events ñu ngi leen di bu baax ci lañ def journée bu neex lañ tëgg macha allah rafet na uh-huh. waaw di santaat suñu sponsor. waaw Nokia automobile waaw bu ñu sañoon nag mu ñëw fii taw waxaat ñu. lim ñu dikk non dégg ñu ko nañu ko ñu dégg. nañu ko wax ñu dégg. billet yi billet yi. ku daan lay jox oto de. ku daan nañu jàppale ci billet yi tegal ñu oto. dama ni dama ni dama ni nañu ko assuré fii nañu ko gën a assuré nañu ko assuré fii mu joxal ñu billet yi. waaw Nokia kaay ana Nokia. Nokia ñëwal nga assuré ñu. kaay nga xamal comme ñoom dañoo bëgg leen tegal oto. da ngeen di xool caméra yi xool leen caméra yi Nokia. dama ne leen ñaari mbër yii di bëre ragal naa ñii di bëri nii bëgg xëccoo seen combat yéen. lu war a bëre lu waral loolu oto. bu ngeen di bëree di yéen oto ngeen di yóbbu. oto ngay leen ku ci daan ku ci daan doo ko defati de. waaw waaw loolu ko man Colobane fii laa dëkk. combat bi du yomb. déedéet. combat yi bi du yomb. léegi kenn neex na. combat bi ku ci daan sax man dama lay daan. voilà neex na ak Nokia. yow jaajëf doole maa la bu doole nga ne man. maa la bu doole fii. mais eh, dinaa leen song de. dinaa leen song de. dàqu ngeen maa bëre de. taxaw leen ah. rek leneen léegi li ngeen doon jooy léegi leer na. eh booy pi waalo laa nekk maa daa xeex fuuf. wax jee fi nekk ak dof dof rek mais maa daa xeex maa la bu doole. booy pi léegi gars yi léegi liñ doon wax ñoom leer na xam nga wax waa ji waxoon na ko léegi Nokia ñu ne na ñëwaat Nokia leeral na ko léegi oto la teg ci digg bi ku daan yóbbu ku daan nag la ñuy wax teguñu fi ñaari oto de benn lañu fi teg ku daan yaa koy jël. na leer nañ léegi tàggool. waa di tàggoo waat xam di woo waa yëmbal yëpp ku ci mel ne xam nga suñu papa Sama Ndiaye ñu ngi lay ñaan nga jëndal ñu bologu billet xam nga booy xam nga ñëpp dañoo bëgg dem stade te ay xale yu ndaw lañ seen doole bëriwul bëgg nañ nga jëndal ñu bologu billet ak maire bi ñu ngi woo waa yëmbal yëpp ak waa Pire ku ci mel ni Serigne Boub xam nga ñu ngi lay woo nga jàpp ci bis bu baax a baax a baax Mamadou Ndoye suñu maire jàppaat ci jàpp ci bu baax a baax da nga boole ñoo gars yi waa Pire dañoo war a génn xam nga dañoo war a am ay biir dañoo war a am oto Cheikh bu waalo sama doom day maa koy woowaat bu baax ci combat bi ak caatu ñaambur nabu Diouf xam nga maa ngi woo ñëpp ñoom Masek Saara Kabbu xam nga ñoom Issa Sega Fall xam nga ñu ngi woo ñëpp gars yi jàpp ci combat bi ngaaka ngaa ko maa ngi lay sas bologu billet nga jàpp ci nga jël ko nga nga jëndal ñu bologu billet xam nga booy ñëw àlla fay Baye Mouhamed xam nga ñu ngi lay woowaat ci bis bi bu baax a baax a baax di woowaat waa yëmbal yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen di woo waa Pire gu rëy ñu ngi leen di woo ngeen jàpp ci bis ngeen mobiliser xam nga waa Malika benn barak géejawaay waay nga ñu ngi woo ñëpp. ñëpp daal waaw ñu ngi woo ñëpp ci bis bi. Babacar yow tàggoo woon nga de wala. non non dama doon wax ci biir wax ji waaw maa ngi maa ngi nuyu ñëpp xam nga du nuyu waa tund Bawol maa ngi woo ñëpp. xam nga di ñaanal Tonnerre 2. dafa war a bëri le 29 sama mag la. ak Trompeur 2. maa ngi leen ñaanal yàlla may leen ndam incha allah le 29 ci kaw Giro Seras. waaw di nuyu ñëpp di nuyu Baye Jili Kolobaan bi ma àndal sama doomu ndey nga xam ne fu ma dee xam nga mu xam ci wet gi maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax barke alxuraanu kan day sonn ci man guddeeg bëccëg di nuyu Bajil Tarkinda nag borom Italia kenn du moom ci moom ñoo tamit nag xam nga monsieur le maire Ahmed maa ngi koy woowaat di ko woo bu baax a baax mu jàpp ci combat bi bu baax xam nga jàpp ci kaar waa Nokia automobile tamit ak waa King ak petit promoteur xam nga moom moo ma jëkk a tëgal combat Mbapane. petit déedéet waaw daa yàgg ci moom waaw da ngeen a yàgg moom di boobal ba léegi. waaw xam nga waa King ak waa. waaw waaw King Nokia automobile. waaw ñoo leen di woo ñoom tamit ñu gën leen a jàppale. ak waa Ndoxum Sow Abdou ñu jàppale ñun Colobane nañ dëkk. yaa may dégg man sama doom baay la na ma jàppale ci combat dama ko mujj Abdou Aziz Faye waaw dama dama rey man Faye san comme moom na ma jàppale tamit waaw parce Aziz yow la ñuy wax damaa bëgg nga jàppale man kooñaa nga jëlal ay ay bolok parce que Colobane ñu a dem dafa bëri am waaw précis maa ngi koy woo ci combat bi xam nga bekkaay di sant Fallou borom mees sama doomu ndey waa divorcé Fallou Galas Diagne maa ngi koy woo Serigne Bouleye ci combat bu baax ay Lamine Thiam ñoom ñëpp tëgg yi nekk divorcé yëpp maa leen di woo ñoom ñëpp mbokki daam caam yi maa leen di woo ñu ñëw jàppale ma ci combat bi ñoom taala caam ak ñëpp nga di woo tamit nag Abdou fay sama mag maa ngi koy woo bu baax waa Guy Ndiaye maa leen di woo sëñ Ablaye di ko wax mu yokk ñaan yi bu baax a baax a baax kontaan ci yow Abdou Khadir Gaye futur maire Dakar maa ngi woo tamit ci combat bi bu baax a baax a baax maa ngi koy woo Mbaye ñoom Mbaye Guy ñoom booy bawol ñoom ñëpp maa leen di woo ci combat bi xam nga di woo tund bawol daal bu ma limu rek xam na xel kontaan ci yéen kontaan ci yéen waaw ma xam may woo may woo alpha ñi ngi koy woo ci combat bu baax a baax yàgg na cee jàpp tiset yi xam nga lépp yàgg na cee jàpp ñi ngi koy woo bu baax ak Tafa Marena xam nga sama grand Saloum xam nga Moussa Diouf am Diallo ñëpp gars yi ñu ngi leen ñu bis bi dafa war a tàng jër jër jër jër ndax koo ñaa dafa bëri wax instant bi xam nga dafa yeexoo dafa yeexoo suuli moo tax tax moo ko kat si ngaa wax la loolu si ngaa la génne waaw Massamba Mass Talib Mass Talib Serigne Saliou bi ma xam fii waaw ak Laye Bébé ñoom Danke bi ñoom Pa Faye ñëpp maa leen di woo ci combat bi ñëpp maa leen di woo ñoo jàpp bu baax ñëw bu soobee Kajoor production ak Ibrahima Diop moo ñu indil le combat de tous les dangers mbokk yi bii nag mooy avant gu Papa Sow ak Siteu Mama Lamine moo koy bëre tarkindaa bi xale bi xew si jamono su bëree mu neex su feccee mu neex su xeexee mu neex kan ñu ni Garga 2 doomi parcelle yaakaaru jàmbaar Wrestling Academy di ndaanaan pire waa Mama Lamine lan nga nar sa digganteeg Garga 2 je tag je cogne et je avec la manière ah xale bi dekkil na Moustapha Gueye Garga 2 du dégg loolu lan ngay tontu Mama Lamine waaw ah, yow ca waxal bi ngay daw te moom laa lay daane ah cum bu ko waxee rek mun na ko ndax ndaanaan dëgg la mbokk yi lamb ji nag en direct lay doon pay per view seen affiche point com mi ngeen ko xam ngeen ko te ngeen li ngeen soxla ci lamb seen affiche dong moo ko mën a jox live de midi à 21h boole koog direct bu musul am fenn triplex jële mbëri seen kër indi leen ba ci biir stade bi 1500 dong la jëndal sa code ak dièse 144 dièse nga bës 5 def étoile 346 360 étoile 1500 nga bës dièse bu fekkee ne da ngaa nekk Europe wala États-Unis fi nga daan jaar rek ngay jaar www.senaffiche.com